maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp du leen wax ni que tey kontaan nañu li ñu doon def tey mooy meeting yi nga xam ni dañ ko yëkkati boobu ba léegi pour renforcer suñu suñu mouvement yokk suñu ñi nga xam ne ñoo ànd ak ñun dem ci population yi laaj leen seen i jafe-jafe ak seen i bëgg-bëgg pour yokk ko ci suñu programme mi nga xam ne moom la ñu en place pour mun a fexe boo woo dëkk bi yëpp ñu dënkali ci benn alliance boo xam ne ñun dinañ ko mettre en place pour mun a fexe ba samp nit ñi nga xam ne ñoom la population yi wóolu dëgg dëgg dëgg loolu nag moom moo ñu taxaw na jóg tey ca wax dëgg yàlla maa ngi sant bu baax sama xarit sama rak sama lépp Idrissa Ndiaye mi nga xam tey moom moo woote woon mouvement boobu nga xam tey bi ma demee des milliers et des milliers de femmes ñi ngi fa depuis 17 heures ñu ngi xaar ba heure bi ñuy waxante yéen guddi na lool mais kenn bàyyiwul li ngay def toog di wax ak ñoom. waaw bi ma bëgg ci Thiès waay mooy waa Thiès xam ni dañoo war a nag dañoo bokk ci Sénégal lu fi nit am Thiès da ko war a am ma leen di woo nag ñu bàyyi àndandoo ak politiciens politiciennes yi nga xam ne. ñoom dañuy wax nii rek mais waxuñu pour vraiment defaral askan bi ñu leen di woo nag ci ñun suñu mouvement bi nga xam ñu koy mettre en place ànd ci képp koo xam ni liggéey liggéeyal cees ak liggéey Sénégal rek moom moo la tax a jóg parce que cees dafa yàgg nag ci dëkk boo xam ni bañ koy xam ba léegi ci opposition la nekk mais wax ni yaa ngi ci opposition du ne moom mooy ngóor li am solo mooy nga liggéeyal sa dëkk liggéeyal sa réew parce que ñooñu ñuy wax ni ñooy opposé ñun depuis vingt ans ñu ngi koy opposé mais teewul ñun ñoo ngi gën di pauvre mais ñooñu ñi nga xam ñoom ñoo ñuy jiite ci ci opposition boobu ñoom ñu ngi gën di riche ku ci nekk tey soo ko xoolee suñ ko gëstoo yaa ngi tabax ay immeuble di tabax ay étage di am ay ranch di am yoo xam ne boobaag lay amoo ko woon ñun nag ñi nga xam ne ñooy ñoo ñooñu jàpp leen topp ni ñuy dawloo ci àll bi comme ay xar ñoom ñu ngi continuer di di riche ñu ñuy continuer di pauvre kon nag ma ñun ñi nga xam ne politique dugguñu ci ndax lu ñu ci am dugguñu ci ndax wut ci alal dañoo nekkoon ci suñuy mbir bopp ba yàlla may lu ñu am ak ñeneen ñu mel ni ñi nga xam ne ñoo toogandoo man fii ñu booloo ci benn tënk suñu benn àndandoo boo xam ne ñu ciy woon ñëpp kuy Cees waa képp koo xam ne sa doomu Sénégal nga koo xam ni Thiès ak Sénégal moo la ñor ñu jóg nag wane ne Thiès am na visage bu bees am na leadership bu bees boo xam ne dañ cee jóg nag quand pour jàppanteeg président de la république waxuma Macky Sall du moom moo ma intéressé li ci am solo mooy ne que tey réew mi président bi la fi teg suñu bëggee tabax Thiès dañuy ànd ak moom liggéey ak moom ba mu jóge fi ñu xool ñun waa Thiès naka dañuy taxawee donc man dugguma ci ay problème wu des problèmes crypto personnels ce qui m'intéresse mooy nous avons mis en place un mouvement élection présidentielle egseegul dañu li ñu soxal moo ñu tànn ñan ñoo ñuy toxal ci ni ko ci ci ci assemblée nationale loolu diggante ay leader national politique waa Thiès ñoo war a xool ñan ñoo seeni seeni député seeni député population Thiès ñoo ko war a tànn suñuy maire ñoo ko war suñu bopp dépendre ci kan la Macky Sall désigné wala kan la Idrissa Seck désigné ñun waa Thiès ñoo bëgg ñu manqueloo ñun ñii autour des hommes de Thiès ñi nga xam ni gëm nañ Thiès des hommes nouveaux qui ont les mains propres ñu mun a tabaxaat Thiès teg ko yoo xam ne kenn du ñu a jël ci loolu lan la bon jigéen ñi moom xam nga man yàlla dafa def jigéen ma sopp leen parce que jigéen ñëpp xam ne ku dimbale ci réew parce que Sénégal nag dañu war a waxante xam ni euh, jigéen ñi ñoo fi ëpp. li tax delloon Sénégal bu yàgg mooy dañoo bàyyi jigéen ñu nekk ci liggéey yu ndaw yi du def de la production ñu gëm aussi ne la micro entreprise. moom moo mun a émerger loo les le pays à à revenu moyen comme le Sénégal si nous prenons le cas de l'Inde et le cas des autres pays ça s'est développé par la micro-entreprise et la et la, microfinance mais nag pas la microfinance bi ma xamoon bi ma fekk man microfinance boo xam ne da ngay jël jigéen boo ko lebal cinquante mille ubbi loo ko compte dix-sept mille francs loo ko frais de dossier trois pour cent teg ko taux quinze pour cent kooku mënoo fexe ba jigéen boobu am ci dara. man nag loolu laay xeex ak partenaires yi ànd ak man jël ay yéen jël une cinquantaine de millions pour le moment maa ngi woo nag sama bàyyee rek ñeen ñi nga xam ñoo ànd ak ma ñu ñëw fekk subaat ma ñu yokk ko ba nga xam ne jigéen ñi day mën a am seen financement pratiquement sans bourse déliée vraiment un tout symbolique peut-être pourrait leur être appliqué mais du am ouverture de compte du am frais de dossier parce que yooyu yëpp na suñu waxantee dëgg UEMOA ak CEDEAO daf ko tere sax c'est interdit par la loi quelqu'un doit avoir un compte bancaire sans pour autant payer quoi que ce soit aujourd'hui on l'impose aux femmes par leur ignorance man nag loolu laa jóg di ko xeex moo tax ma ànd ak ñoom jël li ma am li ma liggéeyoon sama bopp am ko ak li ma sama partenaire financier yi jàppalee ma jël ko tënk ko jox leen ko di ànd ak ñoom nag ci liggéey boobu ba ëllëg ñu xool nag ni ñuy fexee ba yi nga xam ne les problèmes macroéconomiques nga xam ni lu financement moo koy réglé mooy problème ndox mi problème école bi problème éclairage bi problème représentativité problème des routes loolu suñuy maire ñoo ko mën a réglé moo tax on sera o o au au au prochaine élection de maire député yi nga xam ñoo ñooñu mën a waxal ndax réew mi fàttali ko suñu tali yi ak suñu dëkk bi ñu tànn suñuy député bopp ba présidentielle jot nag su boobaa jàpp nañu pour le moment suñu alliance dina booloo dimbali président bi fi nekk mu toogaat su su jógee fi nag ñu xool suñu bopp na nañu waxtaane ba xool Sénégal bi ci dem si mais sans la paix lay dégg dina seen xel dina dal nga jàppale président de la République amoo yéen ànd ak moom ah, xam nga président de bi nekkul nekkul président APR c'est-à-dire waxee na mooy président APR mais ñun jàpp li ñu jàpp mooy président de tous les Sénégalais moom moo moom moo moom moo fal président président modèle daf ko daf koo fal yeneen parti fi nekk dañ ko fal PS daf ko fal yeneen parti daf ko fal ñëpp ko fal donc ñun moom la ñuy jàppale mais bokkuñu APR kooku am nañ droit wax ko parce que bi ñu gis à Thiès ak ni ñu organisé woo ak seen i xuloo ak seen i këral ñun jàpp ñu ne xaj nañ foofu parce que su ñu jaar-jaar nag mayuñu ñu ñëw fekk ay xale yu ndaw yoo xam ne wax dëgg yàlla ñun ba ñuy nekk leneen ñoom ñi ngoon ci yeneen ñu ñëw di xëccoo ñoom ay affaire de place de position loolu taxu ñu jóg c'est pas une carrière politique dans l'APR moo ñu tax a jóg ñu tax a jóg mooy askan bi li ñu tax jóg mooy suñu jigéen ñi li ñu tax a jóg mooy mooy suñu ndaw yi loolu moo tax moom na ñu def lu ñu mën pour jàppale président mais ñu nit danañ def lu ñu mën ci ñeen ñi nga xam ne dugguñu APR ñu dajale leen boole leen ñu jël suñu force additionné ko pour que li ñuy def ñu mën ko gañ. carte d'identité ak waaw yi man jàpp naa ni carte yu bees yi loolu moom lu baax la képp ku bëgg avancement ak évolution da war a tàccu carte d'identité yu bees yi. parce que mag yi réew yu mag yëpp Sénégal nag dafa bokk ci réew yi nga xam ni xëy na bariwuñu xaalis bu ñuy kii mais quand yàlla mel nañu xel ak ouverture ku dugg tey ndakaar ak Sénégal xam ne Sénégal est en train de changer fondamentalement carte carte d'identité biométrie yi daf ci bokk dina tax élection yi gën a fiable gën tax contrôle de sécurité bi gën a fiable moo tax ñun ñu ngi koy encouragé mais par contre na benn bureau fii benn bureau fële kese loo rek lu problème bi dañoo war a mettre suffisamment de disponibilité pour que population mën a accéder rapidement ci carte yooyu bala ñuy xaar ba au dernier moment mu indi ay wax yoo xam ne lu am sotti kon nag ñu ngi woo président ak ministre de l' intérieur ñu fexe. ba nga xam ni bis ni ki tey ñu sampal ñu bureau yoo xam ne dina doy sëkk pour population yi mun a mën a am seen i carte ni mu ni mu ni mu gën a gaawee pour ñu bindu nag mën a dem ci élection yi nga xam ne ci la tànn suñuy ndaw te may ñaan ñoom ñëpp ñoo fekk ci suñu parti bi ak suñu mouvement bi ñu samp ndax ñu tànnal suñu bopp suñuy ndaw tàmmal suñu bopp yoo xam ndaw yoo xam ne mat nañ sëkk ay ndaw te taxawal ñu ci assemblée nationale. ñu wax ñu jiitalu alliance pour un Sénégal prospère peut être sa doxalin wute na ak yeneen politiciens mais fii nag Thiès la dañu faral di gis ñu fi ñëw mbooloo bu bari topp leen buñ demee ba jour élection bi waa Thiès yu bari voté keneen. Euh, ndax loolu yaa ngi koy sóoraale ñu ne ma ko yow dama ko benn élection fii Thiès buy na ne Mamadou Gningue quand même tey war na mun a am doole bi ne lii la représenté donte yaa ngi wax ne ay julli julli jigéen ñi sa ginnaaw. waaw li may njëkk a wax mooy ne que xam nga la woon la woon booba ak léegi du benn population yi ñu am léegi c'est des populations éveillées xay na nag yàgg nañ leen nax mais nax boobu moo tax ñun dañoo jóg soo xoolee depuis plus de deux ans ñoo ngi def des des tournées tey dégg dégg nga sama discours li mu wax pour wax leen lan mooy tànn élection ñi fa ñi fa nekkoon ñëpp gëm naa ni kenn mënut leen naxati ci affaire élection législative ki ñuy tànn du question da ngaa dëkk Dakar Ndiaye ñu ne Macky Sall la yónni rek ñu rek ñu rek ñu woteel la. loolu benn la suñ mouvement tamit bu ko xeeb da ngay xam ne que mouvement bi déjà à l'heure où je vous parle am nañ ay conseils municipaux ba ñu jógee matagul pour lu woon suñu force ma dañoo jóg tey rek teg ci ñaari weer dem am conseiller départemental am conseil municipal loolu loo war a bind ci say këyit ñaar yow mouvement luy luy dem soo ko gisee xam ko luy dem soo ko gisee xam ko loolu moo ñu may confiance que ni li ñuy def ñu ñu àndal dañoo woon dëggu la parce que boo àndal ren ba dëwën ña nga doon gis nga gis ñuy yokk mais ña fa nekkoon ña nga fa bougé wu ñu ngaa am yaakaar ni loolu dina yokk bokk na ñi nga xam ne dëkkuñu ñu fi ca tax nag leneen loo xam ne bu nga xam ko. Thiès mouvement bi ñi ko samp dañ fee dëkk bu njëkk ñi doon am mooy ni ngi ñoo fi yónni ay nit ñu ñëw fii dama tudd turu kenn mais yëg nga fi yow mi xam nga ni ñu bari ñëw nañ fi ne dañu fiy def politique loolu waa Thiès mënuñu koo nangu Thiès da nga dëkk say maam dëkk fi nga juddoo parce que ñun waa Thiès sax dañoo fiir man gëm naa ni bokk naa ak ñi ma àndal dañoo bokk yi nga xam ni dañoo dëkk Thiès tey màgge fi cosaanoo fi ba pare nag wane suffisamment ne bëgg nañ Thiès samp fi ay entreprise samp fi ay école gën di fi ay tool tabax suñuy kër di fi yeewu bis bu nekk te nag xaaruñu ci politique dara pour dugg ci dugg ci li ñuy def moo tax population yi ñu àndal xam ne naxuñu leen nañu xaar daal li li ñëw daal raw li gët li ñu la wax dañ ko diagnostiqué ba mu leer def ay statistiques te li li ngeen gis sax ak li ngeen gisagul moo ko ëpp fekk ay fan da ngeen gis ay cadres yu mat sëkk ay jeunes yoo xam c'est des intellectuels purs et durs yoo xam ne ils vont venir nous rejoindre dans un mouvement des intellectuels dans une organisation boo xam ne rien que le premier rassemblement va plus de 10 000 personnes ah, au niveau de Dakar loolu lépp nag may nañu ñu gëm ni suñu mouvement ak mouvement yi ñu àndal parce tey du woon meeting pour wax leen ñeneen ak ñan ñoo jóg pour pour pour rallier sama xarit Malick Dieng tey na fekk si suñu waxtaan Ousseynou Diouf ñëw na pour ak yeneen yeneen i maire yu yoo xam ne ëpp na sax Thiès conseil municipaux ak conseil départemental yi nga xam ne dañoo jóg pour rallier suñu mouvement yi bari nañu tey mouvement bi ñëw fii ak le 10 c'est des conseils réew mi qui vont l'organiser en public au niveau de Kër Abdoulaye Yakhé loolu aussi gën nañu may confiance ne li ñuy def c'est des choses yoo xam ne on a une bonne confiance ak suñu ñaanu waajur suñu ñaanu sëriñ ak ñaanu dëkk bi yépp ak mag ñu baax ñi nga xam ne tey xam ne li ñuy wax dañ ci dañ ci constant gëm nañ ni que si on continue sur cette lancée incha allah les choses vont aller de mieux en mieux.